Amiga. asalaamaaleykum mbokki internet Wassare Lamb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag mbokki amateurs yi ñu ngi fii ci terrain gaal gi comme d'habitude ki ñu fii woo depuis bi saison bi ubbee ba léegi mooy Diaks Wrestling Production moom moo fi woote waat tey mise bi di 2 millions francs CFA mën a noté ci mbëri bindu 42 lutteurs la ñu am. benn drapeau amul lese amul ruur amul raw gàddu. moo nekk noonu mooy pré premier combat préliminaire bi. dafa xaw a tardé fekk na mu bind mu ñëw arbitre ne ko yegsil. combat yi 17 heures la war a tàmbali. ndeysaan terewul ca ginnaaw. Mbayang Loum moo fa nekk Mbayang Loum moo fa nekk ak Momo Ngom Radiakhé ngi noonu mooy bëre premier combat préliminaire ba Radiakhé moom moo féete ndi joor ngeen moo ngeen lu noir bi adversaire ba féete càmmoñ ngeen moo ngeen bal wax xaaral ma daal di jege technicien yi xaaral ma daal di jege reporter yu mag yi laaj leen turu kii ak Radiakhé kan la. waaw nee na Babacar la ak Radiakhé bu Kër Fodé. Babacar Tine à gauche ngembo ngembal wax. Babacar Tine Radiakhé. ndeysaan Mbayang Loum Momo Ngom. le 20 novembre ñoom ñaar ñoo war a pelloo ci arène nationale ci diggante Bébé Bismi ak Siteu bu Ngor Petit Production moo tëgg loolu woykatu làmb yi bu ñu leen ci gis ci lutte sans euh, ci lutte avec frappe day daal di neex rajaxe ak Babacar xeek Babacar Tine Raja Xe lan lay def da koy jéem a mbot wala da koy génne Raja Xe na ko génn na ya Babacar Tine di nga am avertissement kooku di arbitré sama grand frère la lekk gu bëri dong ko sonal ndeysaan Matar arbitré lekk gu bëree ko sonal Babacar

rajaxe daal di opposé wu loxo yi jàppaat moom it ñu daal rajaxe jàpp na ko rajaxe daanu na Babacar daan na rajaxe rajaxe daan na wala déet Babacar moo daan rajaxe jël surprise c'est normal lamb concentration la tu es venu tardivement Radia Faye amoo temps pour se concentrer moo taxit génne na la lang ga yaa njëkk a mujjee ñëw yaa njëkk a daanu